amul lien en fait. amul envoyé ma euh, je sais pas euh, président Bassirou Diomaye Faye que ñu encouragé ko mu liggéey. mais bañ ko ko falee rek. wala nga bëgg a euh, da nga bëgg a daw question bi quoi. non non man. Pape question bi lan la daw dara. non bàyyi ko dëgg naa lu mu wax de mais bi nga posé ak communiqué bi ñu def amul rapport. le premier ministre. pour féliciter le président qui a été élu comme tout autre mouvement wu li ñu fi nekkoon. mais quatre quatre femmes ci gouvernement. sur voilà, sur trente ils ont raison wala. question question claire nga ni lan mooy seen ah, xalaat. quatre femmes sur le gouvernement. su boobaa ma tontu la ci. Mm-hmm. Ah, ils ont raison wala. non moi man pour man sa euh, c'est personnel moi j'ai pas de problème pour ça. affaire de quatre femmes affaire de deux femmes trois femmes huit femmes même s'il y avait vingt sept femmes sur trois hommes dans le gouvernement moi j'ai pas de problème sur ça l'essentiel c'est qu'ils puissent répondre. Ça, c'est une révolution hein, sinon non non non moi c'est comment les questions de genre là man nekkuma ci yooyu l'essentiel ah mais vous êtes vous devez être là pour tout le monde yow tamit nous sommes là pour tout le monde mais ma de genre j'ai dit. waaw les questions de de genre la. violence faite aux femmes question de genre mais pourquoi ngay wax question de non yow da ngay xaaral Mouhamed yow da ngay nekk pour euh, société civile société civile hmm. est là pour tout le monde amul amul ki góor la amul ki jigéen la yow ni xaaral ni ngeen mën a taxawee non non non combat déedéet xoolal këpp kees noonu ngeen mën a taxawee ni violence faite aux femmes non waaw mais ngeen mën a taxawee wax loolu par exemple quatre femmes si gouvernement bi ngeen sur trente ministres Pape Malick Pape Malick loolu c'est une appréciation subjective Ah quatre femmes dafa tuuti dafa bëri. non dama ne non non xaaral rek xaaral non non suñuy combat suñuy combat yow xam nga ko bu baax. waaw parce que depuis le on collabore ensemble. mais dama ne ni quatre femmes ci gouvernement bi huit femmes ci gouvernement bi. yéen amoo leen ci problème amuñu ci problème. parce que l' essentiel mooy c' pas que góor la wala jigéen la que nii dañ ciy génn mun mënoon nañu am gouvernement boo xamante ne trente femmes ñoo ci nekk et sénégalais yi. duñ ci gis seen bopp. mu am boo xam quatre femmes ñoo ci. loolu mënul am de du ma du ci débat bañ ko guddal waaye loolu mënul am jigéen ñi fu ñu bëgg. pourtant pourtant mënoon ngeen taxaw ne ñoo lànk. Hmm. gouvernement bi ñeenti femmes dafa ndaw. ah parce que y a des femmes qui sont compétentes ma wax rek ce ne sont pas la rek ñu koy mais li ma wax rek on a de pas de problème sur. la femmes d'accord